ñu doyen suñu kilifa ci wàllum sport bi di Samba Sarr moom nag mu nekk sa waajuru góor. Euh, nattu nag euh, wàcc foofu ci Pikine Pikine gi yëpp daal di koy séddoog yéen naqarlu ko tamit. mu daal di nag euh, wuy ji boroomam ci ay circonstances yoo xam ni yaakaar naa jarul ñu ci. Mhm. yegg mhm. dellu si waat. Mhm. kañ kañ ngeen mujjee jokko ak moom yow doomam bu yow doomam nga ma fàttaliwaat ne yow doomam nga. waaw ah, tur bi tooy sa tur nan la. man maa ngi tudd Fatoumata Sarr. waaw Fatoumata Sarr lan ngeen mujjee waxtaanee ak sa papa. Euh, sama papa ñu ngi mujjee waxtaan su juste après après tabaski. Mhm. mais waxtaan bu simple comme papa ak doom rek. Mhm. waaw wax waxtaan quoi. Mhm, waxtaan naanal na genre affaire yooyu quoi. parce que man yàlla dafa dogal ni may sëy te julleewu ma woon après tabaski bi lañ lañ mujj déggante. Hmm. d' accord léegi léegi euh, yéen keroog bi mbir mi bi mbir mi amee nan lañ leen ko informé da ngeen a toog rek ñu ne leen ay jàppante dafa am complexe ba wala dañ leen le góor gi mi ngi hôpital wala affaire bi am na ñu mu fa fekk si seen waa kër. non c' est que affaire bi euh, kenn fekkewu ko ci suñu waa kër affaire bi mu amee. Hmm. ni ñu ko annoncé euh, dañ ñoo ne rek Samba dafa kii quoi dañ ñoo ne rek Samba dafa gaañ parce que le même jour dafa ah benn maam bu góor wàññeeku. Hmm. ñu koy xaar pour na ñëw yóbbaale nit ñi ci dëj bi. Hmm. après ñu woo leen ne leen que sama papa dafa gaañu man fekkuma fi woon. ma hmm. aussi noonu lañ ma woowee ne ma Samba dafa gaañu. affaire bi jaaxaloon ma jëlee ma itam ñu ñëw rek en taxo mais biñ demee ba vers ba vers vingt heures. yooyu. ci la ñu gis ay vidéo yooyu wane ni jàppante amoon na ci même jour bi. ci complexe culturel Léopold Sédar Senghor. après ci laa laajte koo laajte mu ne noo xamuma ci net bi lañ ko gis koo laajte mu ne xamuma ci net bi lañ ko gis ma laajte biñ kon moo leen annoncé desewu Samba ñun dañ doon nekk ni euh, Samba mi ngi Dominique gaañu na comme que tamit euh, Samba en même temps day liggéeyee Dominique di jàppoon ni aussi bureau rek la gaañoo ñoom it di seen jot bu rafet yàgg ni yaa yàllaa ko fekk bureau rek mu mu gaañu quoi. mais par la suite bi ñu gisee vidéo altercation yi gis ni euh, moment bi loolu di am ak moment bi sama papa di faatu une heure de temps teguwu ci jàttaatul feneen complexe ba la jóge dem Dominique directement ñoom dañ ko doon jéem a réanimer mu des ci seeni loxo mais li ko rey complexe culturel Léopold Sédar Senghor la ko jëlee mu nekkoon nag affaire boo xam te ne ñun ci premier premiers instants yi waxuñu ko réellement li ci am dañ ñoo ne rek Samba dee na hmm. mais bi ñu gisee vidéo suñu xel ñu exiger autopsie biñ ko defee aussi euh, ñu xa ñu am firndeel que ni euh, bien que euh, amoon na ay pathologie comme tout Sénégalais parce qu'il est mm. diabétique et hypertendu mais crise cardiaque moo ko yóbbu lu jógee ko ci tension bi fa amoon foofu ci mm. complexe Léopold Sédar Senghor ñu amaat ci beneen naqar parce que Samba dafa dem fu mu war dem Samba même bu dul affaire football bi conseiller municipal la au niveau du département. Mhm. donc tere ko accès ci complexe culturel Léopold Sédar Senghor ak lu fa mën ci xew waru warut a doon yoon bu doon saal ba lañ ko accéder sax mën nga ne affaire de football la. Mhm. mais bu dara xewul complexe ba Samba kenn waru koo tere accès foofu. léegi nag ñu gis nii depuis boobu. Mhm. Euh, gisuñu benn autorité bu ci yëy yàbbi. ñu xam ne sàmba tamit du ku ndaw. Mhm. te méritoowul lii. Mhm. ñun xam nañ kan mooy Samba ñoom it xam nañ kan mooy Samba. Mhm. parce que amaana ngoram ak xas na joxe kàddoom fenn ci wàllum politique moo ko teree ànd ak ñi fi nekk ñëpp mais gisuma kenn ku ko démarché gisuma kenn ku ko démarché wul euh, mu nekkoon nitu principe àndoon naag nit bu doxeek bu doxul kooku la àndal. léegi ñu gis que benn silence boo xamante ne nii silence bu ñu metti la te bu ñu jaaxal la parce ci autorité jóge ko ci autorité sénégalaise yi ñu yaakaaroon ne tey jii bu sama papa tëddoo ñoom ñoo doonoon ñi njëkk mastawu famille bi wala par respect par respect ci mémoire am lii nga xamante ni ci li la demoon di xeexe ba bakkanam def fa ñu sursoir seeni activité ba responsabilité yi ñu situé ko mais dara amu ci ñu ngay continuer di def comme si que ni dara xewul. famille Samba Sarr nag depuis samedi def nañ li ñuy def teg nañ ko ci loxoy yoon toogoon nañ xaar ma suñu bopp dal tuuti pour mën a denc suñu waaju dans les meilleures conditions ñu gis ni aussi Pikine Sénégal ak àdduna taxawu nañu ci façon bu ne amuñu seen fay. gis nañ ni ñu taxawoo sàmba da d' accord te tey dina hmm. fier ci ñoom. d' léegi ma ne léegi bi ñu defee autopsie boobu pare après lan la ñu wax dañoo confirmer cardiaque bi wala. loolu lañ confirmé c'est ce qu'ils ont ah, loolu lañ confirmé loolu la autopsie bi mi ngi ci suñu ay loxo mi ngi ci loxoy poli. ñun dañ ñoo ne woon dinañ ñu woo. woo ñu. léegi léegi ñooñu nga xam ni ñoom ñoom ñoom ñoo doon euh, buux. Euh, Samba ak yooyu ci bunt bi jàppal bàyyil beeg yooyu vidéo yi feeñañ leen feeñañ leen euh, yéen da ngeen a plainte bu dee plainte ngeen est-ce que police tam convoqué na ñaari camp yi woo nañ leen ak ñooñu wala. c'est que ñun bi ñuy bi ñuy mujjee jokkoo ak police. waaw dañu ñoo ne. Hmm. bu ngeen demee ba denc maanaam muy altine. Hmm. u ngeen dencee ba pare. waaw dinañ leen woo entendre leen. Hmm. bu ñu leen entendre ba pare. ñu dem woowi ña def loolu. ñun loolu ci loolu lañu ñu mujjee wax ak ñun te euh, pilotage à vue bi la ñuy bañ ba tax ne ñu doonoon may suñu bopp dal tuuti buñ ñu woowul ñun constitué nañ suñu pôle d'avocat fu wax ji war a egg dana fa egg. kon woo woo ñee tam woowuñ leen ñee woowuñ leen. woowaguñ ñu ma woowuñu sama papa Ibou su Souley woowuñu. non ñee laa wax yéen ñi ngeen plainte yéen da ngeen a plainte wala. non ñun porté guñu ah ok d' procureur moo oto ah ok yoon na koy ba euh, suite suite ñoom ci ci ci ci chemin bi ñu nekk. waaw. chemin boobu lañ nekk de xaar suite bi ñu buñ ñu woowee. waaw dañuy plainte buñ ñu woowul dañuy plainte. ok les les. ñu c' est que comme que ñoom euh, ñoom ñooy autorisé. Mhm. te ñoom de bouche à ñu ne newoon. waaw ngeen dencee ba pare dañu leen di entendre buñ ko jógee woowee ñu def loolu. te ba tey dégguñu si dara mu jaaxal. d' accord ah, parce ci nañ nag depuis altine. attitude bu responsable ngeen ngeen def de waaw waaw ok d'accord te santaane loolu. waaw ñu ngay continuer ci seen activité. Mm-hmm. mais mais may indiwaat beneen ñaan aussi. waaw may indiwaat beneen ñaan aussi. Mm. gis nga bu ñu demee ba correction di am. waaw bu ñu yem ci ñooñu ñu teg ca buntu ba. Mm-hmm. Mm. ay ñiñ lañ rek ñu sonn soxla dix mille wala cinq mille bu ñu fajee seen i soxla mm. mais ña leen sant loolu. waaw. ña sant loolu. waaw la ñu soxla. c'est important léegi léegi mani. Mhm. allo mani. Uh-huh. xam nga am na ñu nekk ci kaw boppu football bi. Mhm. ña ngay xëccoo. kan mooy falu mhm. suba. mais foofu ci diwaanu Pikine aussi am na ay kilifa yu nekk ci boppu football bi. am na xale yu nekkoon ci bunt bi comme tu l'as dit nga ni ñooñu dañ leen di fay ay six mille Mm-hmm. kilifay football bi nekk Pikine ñoo fay ñooñu ay six mille wala kilifay football ba ca kaw di xëccoo ñoom ñoo fay ñooñu six mille. non man nag leeruma mais euh, aw aw ma ci lu ma leer clairement mais euh, man gendarme man boog personnellement. Mm-hmm. koo joxoon. gendarme les organisateurs. ñi organiser loolu. waa Pikine parce que ka taxaw ci buntu bu amee sañ-sañ ka organiser looloo ko fa teg. ki ko kiy organiser foofu ci Pikine. ah waaw. ña ko organiser ñoo ñoo ko fa teg. ca Pikine. ah waaw. ca ko fa teg loolu wax man. ñoo ñoo ko fa teg ay aussi ils ont pris le soin de s'assurer que Samba génn na këram di dem ci complexe ba ndax woote nañ laajte ndax Samba quitté na ñu ne leen waaw ils ont pris le soin de savoir que Samba jóge na këram te complexe ba la jëm maanaam lu ñu préparé la complexe ba maanaam lu ñu préparé la daal xel ñaaw na daal d'accord ndax euh, gisuma intérêt wu nit koo xamante ne ma nga woon ca biir complexe ma nga woon ca biir salle ba. Mm-hmm. waaw woo te kër ga laajte ndax Samba quitté na. te ba ci jonn yàlla gis naa ko Facebook ma ngay publier changer ay profil ak lu ne mu dugg ci te ba tey tànkam teguwut kër ga. Mm. Ah, te te moom Pikine la dëkk. Pikine la dëkk. profil def ci kan sa papa. sama photo papa la def profilam te gisaguñ ko kër ga mu jaale te kooku mu ci woote am information que Samba jóge na wala jógee ko fa te ma nga woon ca biir saal ba <laughs> moo tax nag ñii bu ñu yaakaaree ne lii dina sedd wala dinañ bàyyi mu oyof mu ñu ngi nax seen bopp. waaw waay waaw waay waaw soxla woon dal tuuti rek. waaw ah waay denc suñu papa dans les meilleures conditions. ñun lii lañ soxla woon ñun ragaluñu te duñu bàyyi gis nga tenacité bi nekkoon ci Samba moo nekk ci doomu Pikine. ça c'est sûr dëgg la. ça c'est sûr ku gis xale yi ni ñu taxawee ni ñu déterminé. Mhm. xam ni kenn ku ci nekk ci ñoom Samba jaral na la sa dund. d' accord ñun parewuñu pour bàyyi affaire bi mu sedd domaine affaire politique nag loolu combat wam la woon. Hmm? d' accord yeneen procédure yu ñu ci matal peut-être ASC bi wala club bi ñoom ñoo koy gérer parce que seen mission la doonoon. d' accord mais bi ak euh, club bi réeroo mhm. wuñu. Mhm. dañu nekk seen ginnaaw. di réclamer rek justice pour Samba d' accord d' accord kon madame Sarr merci beaucoup dégg nga. ok merci. merci merci.